arbitre bi sifflé na combat mu doon combat su diggante Neba mu féetee droite Mercedes Kousouma moo féetee gauche aca ñoo ngi bëgg waa Soumlou aca Adama Soum bëgg naa la doomu ndeyu Mbine Massa Mbasseex Mercedes desplaqué na ko arbitre atte na de laa ilaaha illallah lu xew foofu de ba maaga da jël avertissement de waaw de ba maaga jël na laa ilaaha illallaah Ndéba maa ko daan na Mercedes de Mercedes yombi na de Mercedes yombi na